droit papongan sosok khas bo ojan Faye sosok walajini yi Papongane wala Jini Sara Papongane Sossokh moo nekk ci buntu bi wala Jini Sara wala Yal Nakke tout droit fatik, cey papongan Jini Sara ngi nonu le phénomène papongan Faye la jeune Sosok papong nga nang ginono mama du sa galo sambar sama per borom ko ba ngay serer papong nga nang ginono Jini Sara mais tey gisuma pël bi xaw ma pël la xaw ma bu xees bi gisuma ko waa Pongaan waa Pongaan dafa dëppoo lëkkat teewaat beneen lëkkat waaw Ndeysaan koo ni Papa Ngane